ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوة الإيمان في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكي جنابنا سنتي برب سبحانه وتعالى julli ci sangu sang yi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi دي di nuyu di leen ziyaara di am ci seen émission bu am solo bi nga xam ni moom la ñu tuddee xisasul anbiya xisasul anbiya nag du dara lu dul nettali jaar-jaari yonent yi alayhim salaatu wasalaam boo demee ci alquran sunu borom mi ngi wax ni inna haza lahuwa alqasas lahuwa alqasasu alxaq ca al imran sunu borom ma ngi waxaat ci alquran ni faxsusil qasasa laallahum yatafakkaruun mu waxaat ci benn aaya naxnu naqussu alayka axsana alqasas bi ma awxaynaa ilayka loolu dafay firndeel ni waxtaane jaar-jaar yi yi sunu borom subhaanahu wa moo nu ko njëkk a jàngal ci alquranul karim mu mel ni kon yonent yooyu nag gëm leen dafa nekk di loo xam ne lu jaadu la waaye tam lu war la kon almumin jullit dëgg dëgg dëgg yuminu dafa war a gëm ni anna allaha subhanahu wa taala ni sunu borom subhanahu wa taala baasa fi kulli ummatin rasulan ab jullit dafa war a gëm ni sunu borom subhanahu wa taala moo yónni ci bépp xeet ay ndaw ndaw yooyu nag bi maanaa ay yenent yonent yooyu lu tax sunu borom yónni leen nee na yadduuhum ila ibadatillahi waxda daf leen a yónni pour ñu jaamu yàlla kot yàlla dong bañ koo bokkaale ak lenn kon loolu dafay firndeel ni jaamu yàlla dafa am solo waaye bañ a bokkaale yàlla ak kenn dafa am solo maa ngi wax sànq kenn ci saxaaba yi amaana asam ibn Jabalin radiallahu taala anhu dafa am benn bis ci bis yi mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi ni ko digal ma loo xam ni su ma ko defee danaa dugg aljana waaye danaa sori sawara ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko paasewul ñaar defal nga def bàyyil nga bàyyi defal nga def bàyyil nga bàyyi mbokk yi moo di ubudullaha jaamul yàlla del jaamu yàlla rek te rafetal jaamu gi kon loolu digle la te it ñépp la ko boole ndax waaw googu waawul jamaa la kon ubudullaha jaamul yàlla waaye nag wala tusrik bihi shay'an na nga fexe ba bu ko bokkaale ak kenn bu ko bokkaale ak lenn ndax yàlla subhanahu wa taala ci ab jaam mu koy dendale kenn wala mu koy bokkaale ak kenn loolu danger bu rëy mi ngi ci mu ni ko gannaaw bu loolu weesoo nag wa tuqima salaata te ngay taxawal julli juróom wa tuuti zakat te ngay joxe asaka wa tasuma ramadan te ngay woor weeru koor fan la ko tëjee mu ne ko wa taxajjul bayta te ngay aj néeg yàlla ba waaw lil mustatia su fekkente ne attan nga ko kon loolu mbokk yi ab junj la buy wane ni yenent yi alayhi salaatu wasalaam liñ doon woote mooy jaamu yàlla bañ a bokkaale yàlla ak leen moo tax mu wal kufru bi maa yaabudu min dunihi dàq demal soril deñal lépp loo xam ni dees na ko jaamu te bokkul ak yàlla loolu lu am solo la lu jar di bàyyi xel la xam itam ni yonent yooyu ay tànneef lan ay tànneef lan yàlla tànnal seen bopp wa annahum jamian saadiquun musaddiquun raashiduun kiraman barara waaye atqiyaa umanaa hudaata muhtaduuna wa annahum balaquu risaalatahum wa annahum afdalul xalqi mbokk yi xam ne yenent yooyu nag min aadam ila sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu dëggu lan comme ñoom sori nanu ñàkk dëggu parce que bu ñu dëgguwul li leen sunu borom doye matatuñ ko kon ñoom ñu dëggu lanu waaye ñuy dëggal lan alayhim salaatu wasalaam waaye itam ñu jub lan ñu jub xoj ci lan du nu jadd du nu jàng xanaa dëgmal seen borom subhanahu wa taala lu mu leen digal ña waaye lu mu leen tere bàyyi nan ko loolu moo nekk taxawaay yeneen yi alayhi salaatu wasalaam waaye tam ñu tedd ñu tedd waaye tam ñu baax kon yeneen yi seen tedd nga ëpp na waaye seen baax itam kawe na waaye tam atqiyaa ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla te it nag ki ngay woo bu fekkente ne ragal yàlla nekkul ci yow li nga koy wooyee pour nga réussir ko du mën a yomb kon atqiyaa ñu ragal yàlla lan waaye itam umanaa ñu wóor lanu nekkuñ ñoo xamante ne ay workat lan kon yenent yi alayhi salaatu wasalaam mboolem tedd ngay jikko yi mi ngi ci ñoom waaye itam hudaata ñu jub lan ñu jub waaye dañuy gindee muhtadun dañuy gindee maanaa dañuy fekk nit ñi ñu nekk ci ay lëndëm lëndëm ñu fexe ba génn leen ci lëndëm lëndëm yooyu teg leen ci yoon woo xam ni moo di yoonu siraatal mustaqim te moo di yoon wi gënal sunu borom subhanahu wa taala nga xam ni heure boo xëyee di nga ko wax miraaran ay yoon ihdina siraatal mustaqim ihdina siraatal mustaqim mbokk julli gannaaw ba mu taggee yàlla kañ yàlla bakk yàlla jox ko lim moom xam ni kenn wu fi kudul moom xamal ko ni ko lii may def kenn taxul ma koy def kudul yow iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baat bu jar di bàyyi xel na na'budu yow dong yow kot yow lay jaamu kon bu sunu borom wëlbatikoo seen la ngay jaamu leneen wala keneen ku bokkul ak yàlla sa wax jooju warul wa iyyaka nasta'in yow dong lay dimbali ko kon bu fekkee yaa ngi sàkku ndimbal ci keneen ku dul yàlla sa wax jooju wirul nga ne ko nag ihdina siraatal mustaqim dama bëgg rek nga teg ma ci yoonu siraatal mustaqim parce que xam ne yoon woowu mooy jàlle gaa yi ba aljana waaye lu dul yoonu siraatal mustaqima boo ca jaaree man ngaa jàdd te boo jàddee mën na laa dugal jahannama nauzu billah mbokk yi yenent yooyu nag alayhim salaam wassalaam wa annahum balaqu risalatahum mboolem lu leen sunu borom subhanahu wa taala yónni woon jotal nan ko nëbbuñu ca dara wàññiwun ca dara xanaa kay yokk waaye wàññiwun ca nëbbuwun ca parce que daa bokk ci seen rôle seen rôle ñoom yenent yi alayhim salaatu wassalaam jotal seen risala borom te seen seen yénnantu borom ndax loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala yónni leen waaye itam sunu borom defal leen lu kawe te mooy wa annahum afdalul xalqi lu yàlla bind rek yonent yee ci gën waaw lu yàlla bind yonent yee ci gën kon yonent yi ay tànneef lanu yonent yi ay tànneef lanu waaw moo tax ñu ràngoo loolu ñu ci ay may mënuñoo jadd mënuñoo jàng mënuñoo def lu dul njub kon yenent yi alayhi salaatu wasalaam seen baax kawe na lool mbokk yi wa annahum munazzahuna an al ishrak yenent yooyu alayhi salaatu wasalaam aji dañ lanu aji buddeeku lanu ci bokkaale ak yàlla sori dan ko sori ko waaw aji dañ lanu aji sori lanu lii ñuy wax bokkaale ak yàlla waaw waaye nag loolu dañu koo judduwaale munzu wiladatihim wa hatta mawtihim wallah fi ñu juddoo ba fi ñu génne àdduna danoo sori lépp luy bokkaale ak yàlla subhanahu wa taala moo tax kon mbokk yi bokkaale nekk bakkaar bu waaye moo tax nangul yalla nek di lu am solo kon yenent yoyu su fekke wax nan la sen jaar-jaar nga xam ko di nga len mën roy ci sen muñ ya ndax ñu mënoon na muñ len dékku na lu nek ci ay jafé jafé waye da nga len roy ci sen ragal yalla ga waye tam da nga len mën roy ci sen waaye itam dëgg leen mën a roy ci seen jaamu yàlla ga waaye tam dëgg leen mën a roy ci seen ragal yàlla kennal yàlla wéetal yàlla jox ko lim moom kon yenent yooyu alayhi salaatu wasalaam bu leen sunu borom yónnee wàcce ko ci ñun wala xeet wu nekk mu am ci ñum leen yónni kon kookee di yenent bu ab rootukaay la ab niitukaay la ab làmp la boo xamante ni fay leral ha ablam ab lampam nak di le di nit boko topé di nga xam fi ngay jaar waye yar sab nek ko xamanteni Dan lay nital te jaaro te fofé mu jaar bu yagge da ngay jadd te jadd gogu mën la jural musiba mo tax ñu ne kon al iman bi rusul gëm yonent yi dafa nek di lu jaadu waaw ay gëm yi dafa nek di lu jaadu e mbokk yi xamni yenente yoyu seen lim sakkan na lool waaw seen lim sakkan na lool toll nañ ci ah, fa tabarakallahu cent vingt quatre mille prophètes di téeméeri junni yenent ak ñaar fukki junni ak ñeent ñoom yenent yooyu alayhi salaatu wasalaam waaye li ci gën a yéeme mooy kenn ku ci nekk ci yenent yooyu ah fa tabarakallahu woote woo lenn lu dul saxal kalimatu laa ilaha illa allah ñoom ñépp nag yenent bu ci mës a ñëw la ngay woote du lenn lu dul saxal kalimatu la ilaha illa allah waaw xam ni benn boor dong moo am te moo di sunu borom subhanahu wa taala mooy kiy joxe mooy kiy xañe waaw mooy ki dundal mooy kii rayee waaw kon kooku mooy kenn mooy su borom subhanahu wa taala yent yooyu nag eh, am na ci ñoo xam ni sunu bom daf leen a yónni pour ñuy gindee sunu borom daf leen a yónni pour ñuy waare sunu borom daf leen a yónni pour ñuy defare yent yooyu ñim ci jot a yónni ñu ngi toll ci trois cent treize te moo di eh, ñetti téeméeri yenent ak fukk ak ñett ana ñu ci des ana ñu ci des waaye ñi mu yónni mi ngi toll ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett te ñoom ñépp nag daawa bi mooy wéetal yàlla rek ñetti téeméer yooyu nag ak fukk ak am na ci ñoo xam ni tudd na leen ci alquran ñim tudd ci alquran mi ngi toll ci ñaar fukk ak juróom muy vingt cinq loolu ba tey jagle la goo xam ni sunu borom subhanahu wa moo ko jagleel ñooñu sunu borom dafay jël mbir teg ko ci kaw mbir loolu nag sañ-sañam la loolu nag masia am la te mooy coobaram la moo tax mu ni adadul anbiya allazina qassahum allahu bi zikri fi alqurani alkarim waa wa na nabiyan e, yenent yi nga xamante ne sunu borom subhanahu wa taala daf leen a jagleel lu kawe te jagleelu ko yeneen yenent yi tudd leen ci alquranul karim téere bi nga xamante ni mooy ndeyi téere yi téere bi nga xamante ni moo folli téere yépp téere dootul mel ni ki moom ñu ngi toll ci ñaar fukki yenent ak juróom a yenent yooyu nag ke ci njëkk moo di aadama alayhi salaam te aadama xam nga ni huwa abul bashar mooy bàyyi bindee fi yàlla tudd na ko ci alquran waaw am na keneen koo xam ne bokk na ci rang bi muy idris alayhi salaam sunu borom tudd na ko ci alquran loolu jagle la am na keneen muy nuux alayhi salaam yàlla tudd na ko ci alquran jagleel ko ko أمنا كرين كو خبني ميهودين علي إسلام انت يا لهود يا لتدنكو تي القرآن أمنا كرين كو نيوخ انت يا لصالح يا لتدنكو تي القرآن أمنا كرين كو خبني مودي انت يا لإبراهيم يا لتدنكو تي القرآن أمنا كرين كو نيوخ انت يا لوتين سنبام تدنكو تي القرآن أمنا كو نيوخ إسماعيل ينتلا يعني yàlla tudd na ko ci alquran am na ko di wax isxaqa yenent la tudd nañ ko ci alquran am na ku ni wax yaqub alayhi salaam sunu moom tudd na ko ci alquran am na ci beneen yent bu ñuy wax yusuf alayhi salaam yàlla tudd ko ci alquran am na ayuba alayhi salaam mi ngi ci alquran am na shuaybu alayhi salaam yàlla tudd ko ci alquran am na muusa alayhi salaam yàlla tudd na ko ci alquran am na Haarun alayhi salaam yàlla tudd na ko ci alquran am na Zul Kifli yonent la bi ngi ci alquran am na Daawuda alayhi salaam yàlla tudd na ko ci alquran am na Suleymaan alayhi salaam yàlla tudd na ko ci alquran am na beneen yonent bu ñuy wax Iliyaas boo demee ci alquran daa ko fekk am na beneen yonent bu ñuy wax Ilyasa mi ngi ci alquran. am na yunus alayhi salaam mi ngi ci alquran am na yent bi ñuy wax zakariya boo demee ci alquran daa fekk turam am na beneen yent bi ñuy wax yaxya mi ngi ci alquranul karim am na beneen yent bi ñuy wax isa mi ngi ci alquranul karim am na beneen yent bi ñuy wax sayidna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñii ñaar fukki yeneen ak juróom boo demee ci alquran sunu borom moo ko jagleel mu nekk loo xamante ni wa anna al fadla bi yadillah yutihi man yasha kan zalika fadlullah yutihi man yasha mënoo ci dara waaye ci biir ñaar fukk juróom yooyu dañuy jàpp ni trois cent treize yëpp sunu boroom doole yónni pour ñuy gindee ñii nag mu jag leen tudd leen ci alquran waaye mu amaat ñeent ñoo xam ni ñoom la ñu tuddee ulul azmi min ar mooy ñi gën a dogu ci yonent yi pas-pas aqida bu dëgër daj lu nekk gis lu nekk dund lu nekk ba sunu borom tagg leen yëkkati leen yonent yooyu ñoom la tuddee ulul azmi mina rasuli tabaarakallaahu bokk na ca juróom lanu bokk na ca yonent yàlla noox alayhi salaam ci gaa yi jàmbaar yi la bokk waaw ci jàmbaar góor yàlla yi ci la bokk bokk na ca ibrahima alayhi salaam ci jàmbaar yi la bokk bokk na ca isa alayhi salaam ci jàmbaar yi dëgg ci la bokk bokk na ca nuux alayhi salaam ci jàmbaar yi la bokk waaye nag ponkal mi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kooku nag moo de xayrul baraya kooku nag mooy yaakaari jaam yi kooku nag kullu yenent ñu ngi góor ci wetam moom moo leen di moom moo leen di niital moom moo leen di leeral moom mooy seen kilifa mooy seen njiit dañuy wax ni aadama alayhi salaam awwalu nabi mooy première yent ci yent yi waaye ñoom ñépp nag ki ci mujj wàcc mooy seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaye muhammad rek ràngoo na mbir ma ràngoo na mbir ma jël na drapeau ba tiim na leen ci zahir waaye itam tiim na leen ci baatin kon mbokk yi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam e, gëstu seen jaar-jaar xeeñtu seeni jeexit am na solo ndax lan dina tax lépp lu la dal ci ay fitna nga di gees ni ah yenent sàngamkat fitna sangam tegu woon na ci kawam waaye daa muñoon te moom la ma sunu borom roy la woon subhanahu wa taala laqad dakara lakum fii uswa xasana alayhi salaatu wasalaam moom doy nañu sëkk misaal doy nañu sëkk rootukaay doy nañu sëkk niitukaay waaye doy nañu sëkk royukaay waaw ndax koo xamante ni lu yàlla bind yaa ci gën koo xamante ni nii ni ngay gënee ci ñëpp fitna bu ci nekk bi tegu sa kaw tegul ci benn yenent waaye musa wax o oh, loolu taxawaay la bu am solo boo xamante ni bu dee ayuba lam daj la muy métti métti métti bu dee eh, tabaarakallaahu jéen ñi mel ni ki ñoom lan daj la muy metti métti li alayhi salaatu wasalaam daj ñoom daju na ko waaye nag tabaarakallaahu mooy rawkaay bi mooy rootukaay bi sunu borom defal ko loo xam ne defalu ko benn yenent wa rafanaa laka zikraka alam nashrah laka sadrak wa wadaxnaa anka wisrak allazi anqada sarak ba noppi wa rafanaa laka zikraka loolu du lu ndaw ba noppi tànnal ko tànnal ko ay wayjur yoo xamante ni ah set nañ wicc muy abdullah tanal ko wayjur wu jigen wu set wicc muy amina ba nopi abdullahi momu ak amina momu abdullahi tollon na ci atam at yo xamanteni jigen juko musa gis ambal ko ci fel comme sunu borom subhanahu wa taala Ali salatu wasallam moy loxom moy ndey joram moy buntam mu ne ki kat ci kim wara ko la waaye du nekk n'importe qui moo tax jigéen ñooñu ba kenn ku nekk feeñalee sa cofeel ci abdullahi sunu borom subhanahu wa taala ñu abdullah yow takkal sa tubéy ba mu dëgër du jigéen ju la neex ngay àddal subhanahu wa taala waaye amina alayha salaam moom itam ba mu tollee ci atam jigéen ju góor gu ko gis rek ëmbal nga ko cofeel waye comme mom ci la sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nara a soqi koo fokk sunu borom garantel ko muccal ko ci bari ba nga xam kenn du mën a tuumaal mukk kenn du mën a yaayam mukk moo fa tabaarakallahu sunu borom ne amina takkal sa sér yow du góor gu la neex ngay àndal sa maam Cheikh Sidi Xaaji Malik radiallahu taala anhu nettali nañu lépp ca xilaasu zahab tey boobu la ànd ba mu boolee Abdullahi ak Amina ba ñu ànd seen ànd boobee ca seen xayma boobe fa tabaarakallahu am na la ca sosoo loo xamante ni kookee mooy yaakaari jaam yi kookee mooy rawukaay bi kookee mooy xettalukaay bi kookee nag moo di sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom moo tax ba ko yaayam ëmbee ah am na lu feeñ am na lu feeñ la feeñ mooy lan bari na ay yenent yoo xam ni ñëw nañu ndokkeel si Amina ci ki mu ëmb mu di yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon kii kay kenn rekk la bi mu am bee ba juróom-ñeenti weeram weer wum mu dugg rek am na ku ñëw ndokkeel si ko loolu nag am na la muy junju am na la muy firndeel am na la muy wane am na la muy jàngale alayhi salaatu wasalaam mbokk yi kon ci nii la sunu borom tànnale sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yooyu la way jur yi sell te baax lool waaye itam ci ci la koy yaayam ëmbe waaye ndeysaan dogalu sunu borom macha allahu kaana wa ma lam yasa lam yakun ca la way juróom wu góor génne àdduna ba ndeysaan na bu juddu gisul way juróom judd na ci ay jafe-jafe ci ay problème ci ay coona waaye fokk mu jaar foofu ndax li muy war yanu boo nekkul a muñ kët ah doo mën a yanu loola mbokk yi kon xisasul anbiya loolu rek la indi di fàttali konte ak yéen di ñaan borom bi dafa leen tawfiq ak taysir dafa leen asaba wa taa in uridu ila al islah mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh